L'air qui te la lumière du Coran et de la Shona. Abonnez-vous Alhamdoulilah Rabbil Alamin Nafmaruhu wa nasta'inuhu wa nasta'hdi Wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyati amalina من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومهوى الظلمة وكسف الأمة عن هذه الأمة وتركنا على بهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله معاشر المؤمنين حق التقوى واعلموا أن الأعمار مهدودة والأنفاس معدودة واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون mbokk yi yàlla tabaraka wa taala ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu boroom ngi ñaanal sunu yonent muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam yàlla na ko yàlla dolli xéewal te musal ginnaaw loolu sunu xutba tey sujaatul mawt mooy dee bu المتابع لمواقع التواصل الاجتماعي لا يكاد يمر عليه يوم دون أن يجد نعيا منشورا لأحد أصدقائه كيف كيسيب أكتيالتي توك إنفرماسيون يي ci lu mu mën a doon moo xam taskatu xabaar yi la tasukaayu xabaar yi wala réseaux sociaux yi da nga dëkk bi am na lu fi nekk te mooy dee bari dee bette dee gu jeex waxtu yii barki dem dana am ku faatu te fa dëkk yóbbu ko ci armée yi fekk mu fees kenn ki ñu doon gasal fax mu gas ko ci yàgg mu taxaw mu ne jël leen pel bi dama sol mu ne actuellement nii par jour dinañ suur trente personnes par jour mu ne bu njëkk ba toog journée ba mu jeex tak am kenn mais mu ne instant yii toog par trente personnes la ñuy suur par jour am te loolu yëpp mbokk yi ñu ñun ci teg bët te juróowul dëkk bi dara commencement feebar bi dëkk bi dañoo woon ni ñëpp ñu tëj yëpp moon yëpp ñu tëj ko ñu arrêté leen yàlla commencé loolu mu jël yëf yi commencé wàññee ñu jékki-jékki féetéerlu ci ji lépp ba mu des jàpp léegi léegi lañ may wax benn jumaa boo xam ne damaa yebale woon nañ ko jiite bi ma ñëwee ba teg sama tànk ci jumaa ji lañ ma woo ma foofu kat nee kenn du jumaa tey ndax dañ koy tëj nangu na ñoo ubbi stade ubbi marché yi nangu na ñoo ubbi ndaje yi soirée danse yi yeeg lépp amaa néegi yàlla yi moom nañ ko ci néegi yàlla dañuy ñaanee yàlla su ñu tëjee néegu yàlla yi suñu teree aji màkk lépp lu jëm ci lislaam ñu arrêté ko fan la ñuy julli bi di ñaanee yàlla pour yàlla teggi mbas mi ci kaw nit ñi mbokk yi ci yàlla tabaraka wa taala tey kenn bu nekk ci ñun ci ñu la gën ci xarit ci ay mbokk bés bu nekk di nga yëg xabaar am na ku faatu du ko jot dara dafa tëdd rek dee yeewu wala nangam ak nangam wala nangam ak nangam wala nangam ak yi yàlla moo xam xarit la moo xam soppe la lu kenn yéenewul kenn ndaw la wala liir la wala mag la wala màgget la tey société bi xeet yi ñëpp koy faat ci lu amul benn lay fa asbaha almawtu fujaa simatul asr kullu dalika jaras inzaarun li insaanil xaafil allahi tey dee googu nga xam ne dafay bette moom mooy tomb bi nga xam ne moom moo sax mooy waxtaan bi nga xam ne moo xew tey foo toog ci grand place diw dee dafa xëy rek dee diw dee démb maa moom ñu àndoon diw dee dafa tëdd démb yeewu loolu yëpp nag lan la jaraaf benn kolos la bu yàlla soni sonori la bu yàlla bës lu tax inzaaran li insaani l xaafil allahi ci doomu aadama boobu ci mbokk moomu ci nit ko nga xam ne dafa sàggan amul conscience ci boppam fokkat la caaxaankat ba pour mu mun a tuub dellu ci yàlla wa taala إخوة الإيمان حتى ينتبه ويتعظ ngeen dégg bee bari ji ñuy dee mel ni ay weñ armée yoo dugg ñu ne la fees am na benn bërëb bu ñu ma wax ci biir Sénégal dañuy suul ba guddi jot ne ba yi ne di bàyyi ba suba ñu danoo sonn def loolu ndax doomu aadama yi war nañ ci xalaat wala waroon ci xalaat kenn ku nekk war a xalaat sa bopp war ngaa yëg ne yaa ngi yóbbu waate rek bi sa ngi ñëw buñ la yóbbee doo ko desi waat ixwaan yi wa kafa bi mawti waaxizan dee dong moo doy waar dee waaru dara dootu la waar mais Sénégal dee dee léegi événement la dee léegi daanaka puukareel dee noos la dee mbumbaay la fekke leen dee dem leen toog ci morgue yi ñuy sang néew bi nga dégg kuy xaqataay ba tappaate nga gis koo xam ne ma ngay wax leneen nga gis kuy wax mbirum àdduna fekk néew baa ngi ci morgue bi ñuy sang suñ koy yóbbu noonu suñ demee ba armée sax am na ñoo xam ne bala la ñuy taxaw ci force ba du ñu yegg ca fam waxtaanu àdduna mbumbaay caaxaan ci kër gi nag daanaka foofu moom noos moo fi ndax dara la ñuy dem jëndi nag li gën a duuf ci nag yi ñëw tasaare mbana yi samp baas yi indi ji njarmeeg ataaye jeeg añ bi léeg-léeg nga gis ku lekk ba mu suur daal ne ceeb bi amul yàqu sama bopp baa ngi métti naanuma ataaye tey xanaa ndox mu sedd amul ana glace ana néew ñu ngi ko bàyyi armeel ya ñu ngi koy laaj kenn xelam du dem ci moom إخوة الإيمان وكفى بالموت واعزة فالفرصة لا تزال أمامك يوسم ما كنت جلد منك يوسم أم نجتان دقتي نومي نومي نومي دوخ لا تتأثر عن العودة منك يوم بنوك روس بني ري هم دلوا الدناو ننطق سلي بكار لا تزال أمامنا فرصة تابدتنا تيرون منين am nañu jot julli seen juma ñaata nit ñoo faatu léegi instant yi ñu ngi ci morgue yi ñuy waaj ñu ngi leen faale leen yóbbu ñaata annonce ngeen dégg bi dégg maa ngi ci armée yi heure bi barki dégg maa ngi ci armée yi semaine bii saa yu waxee dugg naa ci armée yi saa yu waxee naa ci armée yi mbokk yi kon am nañu temps nanu delluwaat تعبياتنا سوكرم لا نتأخر عن العودة إلى الطريق النصح والإنصاف بنورش بنوي وقت لي غاند غاند دي ري ري دي يكتي اي مك نانو ديلو وات يالا تبارك وتعالى بني ساني واراتي بني ساني لا يبيل لا تتباطأ almasiru ila tariqillah bul yées yow sama mbokk man ak yow doon ànd lëkkaloo jëm ci yoonu yàlla tabaraka wa taala wa huwa yantaziruka la tataaxar am dul xaar yàlla am nuy yéeg yàlla am nuy tàllal loxo fa firru ila allah inni lakum minhu nasir nan daw dem ci yàlla tabaraka wa taala yàlla mu nuy xaar wallahu taala yuzakkiruka fi kulli waqt yuzakkiruna fi kulli waqt حتى نبادر إلى الطوبة ويقول ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فتال عليهم العمل وقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون sunu سبحانه وتعالى wa ta'ala mu ngi fàttali pour nu gaaw tuub dellu ci yàlla dëkk bi dañoo war a tuub dellu ci yàlla lépp lu nu war a def takk baax na raxasu baax na pomposel baax na distance baax na lépp baax na waaye la ca gën a baax mooy tuub ci yàlla laa bu dañu tuub wallaay bu nu tuubul dañuy sonn bu nu delluwaatul ci yàlla dégg ngeen première vague deuxième troisième ñoo ngi ne quatrième ak cinquième ak lu xam xamul pour dellu ci yàlla rek jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu war nu ko yéexit suñu borom wax na ci alquran ci surat alhadid aya 16 mu ne alam yaani lilladina amanu an taxshaa qulubuhum li zikrillahi wa ma nazala min allah ndax jotagul alam yaani la wax dafa ndax jotul ci way gëm yàlla yi ñi ne ñoom ñoo gëm yàlla ndax jotagul ci ñoom ba tey seen xol yi toroxlu seen xol yi tiit ñu dellu ci yàlla tabaraka wa taala ndax li yàlla wàcce ci dëkk ku gis li xam ne dëkk du vaccin am na ñu vaccin ñu ñu dee kon du vaccin kon vaccin du musal kenn yàlla rek tabaraka wa taala moo fi nekk amul keneen ñaata nit lañu dégg ñu vacciné wu ñu dee ñaata ñaata kon bu vaccin bi du saabu bi du masque du raxasu bi lan la loolu dañ ko def rek pour jël matukaay lu baax la waaye lan la delluwaat ci yàlla tabaraka wa taala jalla wa azza parce que moom mooy musalaate moom mooy borom jàmm allahumma anta salaam wa minka salaam wa ilayka yaudu salaam wa hayyina rabbana bisalaam kooku mooy borom jàmm kooku ma la ñuy delluwaat tuub jéggalu yàlla bakkaar yi suñu borom subhanahu wa taala daan ñuy jéggal wala li gën a doy waar tey ñoo ngi ñoo ngi ci nawet lan ngeen dégg lan ngeen dégg baykat yi di wax musiba mu ñuy yor te parce que taw réew mi aada mooy aada lu si xam mooy su tawlu woon nan la ñuy def dañuy tëj caaxaanukaay yi dañuy tëj baar yi tëj danse yi arrêté lamb bi arrêté football bi lépp ñu def lan ñu julli julli baaw naan ngaa di ñaan yàlla ndox mi daal di wàcc waaye boobu ba léegi dégguleen ko boobu ba léegi lan la ñoo ngi continuer ci suñu mbay ñoo ngi continuer ci suñu caaxaan ñoo ngi continuer ci ñu neex loola tax jalla jalaalu wa azakamaluhu téye ndox ikhwatan iman borom bi nee na wala yakunu kalladina utul kitab waru leen nuroo ak ahlul kitab mooy yëwut ak nasaraan yéen julit ñi waru leen nuroo ñooñu lu tax ñooñu lan lañ def ñooñu day يالله تبارك وتعالى ما يمنلنتا فتعالى عليهم الأمد كارن يوم يوم لب جب جب فقصد قلوبهم سين خليا دادي واو بخلي واو يالله من وكثير منهم فاسقون لأفتي يوم أي كاتشون أي ساي ساي إخوة الإيمان yéen samay mbokk ci yàlla ñu góorgóorlu xaw ne xam ne dee gi du دون سباي الموت زائر غير مرغوب فيه لكنه واقع لا محالة ياك ياك ياك ياك moo xam feebar bi la moo xam ñàkk feebar bu yàgg yàgg dañuy dee waaye xam nga lu doy waar dee bu bette bu garaaw bi démb dama gis benn seen bu ma choqué dañu dem hôpital Dantec jëli suñu benn kilifa bu gaañu ay 9 heures ambulance bi yuuxu ñëw ndeysaan jib kër gi comme dégg nañ sirène bi waa kër gi góor gi gaañoo ñëpp génn taxaw ci bunt bi ambulance bi di daw di ñëw di ñëw ba romb kër gi rek ma dégg benn jigéen bu yuuxu daan na woy sama romb na kër gi wàccul wooy sama romb na kër gi wàccul ma ne ko dootul wàcc keroog ba mu génnee dootul dugaat keroog ba mu génnee dootul dugaat biñ ko sangee ba pare ñu koy yóbbaat ñu taxaw naan way romb na kër ga ma koy def dootul demaat dootul dellusiwaat may wax saa ñun ñun ñëpp ñoo ko war a xel bis ngi ñëw dinañu wàcce suñuy lakk dinañu génn suñuy biir ne dinañu bàyyiloo jabar bàyyiloo ñu jëkkër ñu doom ñu liggéey ñu ay compte ñu wallahi wallahi ñu romb kër gi te ko wallahi ñu romb liggéeykaay yi wallahi ñu romb grand place wallahi ñu romb bépp place buñ doon def suñuy mbir buñ fa taxaw direct rek ci yàlla tabaraka wa taala loolu dañ ko war a bàyyi xel xale bi dafa yuuxu ci kaw naan woy sama papa ngi romb kër gi wàccu maa ngi ci biir oto bi liggéey woy mu ngi romb kër gi te wàccu fan lay wàccee fan lay wàccee kañ lay wàcce kañ lay wàccati dañ leen góorgóorlu ñu dellu ci yàlla ñu tuub suñuy bàkkaar ab jullit dafa war ñun ñëpp amul kenn ku nekk ci ñun lu dul yaa ngi ay bakkaar yu dul jeex nga war a tuub ci yàlla tabaraka wa taala loolu loolu yàlla def amul kenn ku amul bakkaar kii wax ak kii dégg ak ci yem maa min bani aadam laa yaqa'u fi maasiyatillah amul kenn koo xam ne ci nit ñi lu dul di nga def bakkaar amul kenn yonent bi sallallahu alayhi wa sallam كل ابن آدم خطاء وخير القطاعين التوابون حديث الترمذي وابن ماجه وأحمد وقال الألباني حسن يرجع محمد عليه الصلاة والسلام لنا نبني ني نيب ني اي بكار أو الكلمة من مين كودو بكار كو خلات تي ادنا سا خيل ديم بكار صلى الله عليه وسلم ني كي غنا با تي ديف تي mooy ki nga xam ne bu defee bakkaar ba pare day tub wa man huwa alladi laa yaqaw fi maasiyati llah wa rasul sal allahu alayhi wa sallam yuqas yaqsimu wa huwa sadiq yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa ne ana kan ci nit ñi moo dul def bakkaar moom yonent bi mu diñ fa yaqulu mu ne walladi nafsi bi yadihi law lam tuznibu la zahaba allahu bikum wala jaa bi qawmin yuznibuun fayastaghfiruuna allaha fayaghfiru lahum rawahu muslim sallallahu alayhi wa sallam dafa giñ ñu toll ne yonent bi di giñ naan giñ naa ci ki nga xam ne sama bakkan bii ci loxoom la nekk lan la yonent bi di giñ ana lan moo rëy ci moom ba muy waax moom yonent bi waaye xoolal yonent bi giñul ci Ibrahim giñul ci Nuux giñul ci Muusa giñul ci Isa giñul ci benn yonent giñul ci maamam giñul ci kenn sallallahu alayhi wa sallam ci kan la giñ ci boromam parce que xam na ne giñ jaamu yàlla ba parce que xam na ne giñ waa jaamu yàlla ba moo tax moom yonent bi alayhi salaatu wa salaam mu ne walladi nafsi bi yadihi giñ naa ci ki nga xam ne nafsi sama bakkan bii man Muhammad ci loxoom la kooku mooy kan mooy yàlla ñun tey bi kuy giñ soo bëggee nit xam li ngay giñ da ngay giñ ci nit ci nit ngay giñ bokk na ci feebar yi gën a rëy ci Sénégal mooy waat ci ku dul yàlla waat aka ah, fay nekk te nit ñi dégg nañu dégg nañ yàlla wax dégg nañ yonent waaye lànk lañ def ndax féppéer lu wow la dëgër bopp da ngay gis koo xam ne dafa ne man buñ ma giñalee ci diw rek ba xam ne dëgg la sama yoon ci leneen dëgg la waaw buñ la giñalee ci yàlla nag suñ la gënee ci yàlla xanaa xamoo giñ ci nit bokkaale la giñ ci kudul yàlla bokkaale la loolu tax yonent yàlla Muhammad mu ne wallazi nafsi bi yadihi giñ naa ci ki nga xam ne sama bakkan bi ci la mu ne law lam tusmiu bu ngeen dul doon def ay bàkkaar la zahaba allahu bikum yàlla dina leen ci jële wala jaa bi qawmin yuslifun mu indi ay nit yoo xam ne dañuy juum di def bàkkaar fa yastaxfiruuna allah ñu jéggalu yàlla fa yaxfiru lahum mu baal leen loolu loo ci dégg mooy yow matoo da ngaa manqué chaque jour da ngay juum waaye dañoo bëgg boo juumee nga bañ cee lan nga gaaw daal di parce que matoo da ngay tarxi doomu aadama nga walaqad alimna ila adama min qablu fa nasiya yàlla ya nee na aadama seen maam seen baay laa njëkk a signé ak contrat mu daal di tarxiis aadama njëkk a tarxiis awalu naas awalu naas ki njëkk a fàtte mooy premier njëkk a fàtte ci nit ñi mooy aadama aadama yàlla loo aljanna kon ñun ay doomu aadama lañ laa bu ñu tarxiis waaye bu ñu tarxiisee lan moom war ñu gaaw daal di delluwaat ci borom la yàlla defal sécurité ci kaw suuf si buñ ko may mooy al ambiya ñoom doomu man ak yow ak keneen keneen laa pour dañuy taxiis parce que mat mun dañoo manqué ay doomu aadama lañu ixwatal imaan dañu bëgg ci ab jullit su tarxiisee mu daal di gaaw mel ni ku yaramam takk loo xam ne waru ci woon takk wala ay yéreem am lu ko laal loo xam ne waru ci woon nekk te du bëgg kenn teg ko bët kooku li muy njëkk a def day gaaw dem si mbir su simmee ko ba pare mu fexe fóot yére yooyu mu fexe yaramam boobu mu sang ko waaye bu dee bakkaar la na fexe bakkaar bi daal di gaaw a deñ ci moom au lieu que mu toog di yar bakkaar ab jullit du dajale bakkaar jullit du dajale bakkaar jullit day tuub dellu ci yàlla tabaraka wa taala ndax innama yaxfiru lil abd ida kaana wuqu at zambi minhu ala wajhi galaba alshahwat doomu adama yu bëree bëree bëree bëri bànneexi bakkan moo leen tere egg ci yàlla tabaraka wa taala bànneexi te suñu borom subhanahu wa taala nee na wa amma man xaafa maqaama rabbihi wa naha nafsa an il hawa fa inna al jannata hiya al mawa ku tere ba bànneexam ku tere bakkanam ay bànneex mu fexe ba dox diggante bànneex yi ak bakkanam borom bi nee na kooku bu faatoo aljanna laa ko jëmee برم بنين قد افلا من سكاها وقد خاب من دساها كسات سبكان تكنا واي كسات سبكان بيتي نبي يوم بعد يا الله اي بكار برم بنين بيرتو يالنا ني الله وند مورسغل ني توكو يالنا ني الله وندين مورسغل ني سوري الحمد لله وحده ولا نعبد غيره مخلصين له الدين معاصر المسلمين كم يسعى الإنسان في الدنيا ويجتهد نفسه ويبذل ويخدع يخطط ويضبط ويرسم ويقدر قدر ملأ قلبه عملا بالعيش ومنى نفسه بما تلذ من متع الحياة تراه يرسل الحسابات ويدقق في تجارته يعرق ليجمع ويجمع ليعطي أو يمنع مقيتي الله نياتا لن يجيس نت أدنس بيبور كيف تلا يتكرم بيبور كيف تلا يتكرم مويدف أي أفور muy def ay étude di settantal bu baax di bind di wëlbët xolam li nekk yëpp mooy naa am dund gu neex naa am dund gu mét dund gu yëwén naa dund ci lig na ma lépp wër ci taraanga adduna mu yéene boppam bànneexu ci dund adduna gi nga gis ko moom doomu aadama boobu muy def ay étude di calcul même bu dee commerce muy def étude yu sévère ci commerce bi muy ñàkk moom doomu aadama boobu ngir dajale muy ñàkk ngir joxe wala mu xañ di toppatoo ay doomam toppatoo ay soxnaam toppatoo toppatoo aveniram mbokk jullit yi mu teg ay projet yoo xam ne masru wa masruat amaluhu kasira wa amalihi mutalammina ay mebet ay projet dafa bari lol way dafa wuté lol marka maskan wazifa ja safar siyaha rek moy ay mbir war way de quoi fonction daraja ndomba tank tukki tourisme wër avion yi jéem wàcc waaye bisay ñëw rek ñu fëgg porte bi daal di ubbi bisay ñëw rek ñu wàcce ko lan bi dootul yéeg bisay ñu génne kër gi dootu ci dugaar bisay ñëw yére yu mu soloon dañ koy simb ndombo tànk yi dañee di teg danaa las lépp dañ ko koy defal dañ koy sang sang ko yeew ko teg ko ci kanamu jàkka ji daal ne allahumma innahu abduk kenn du wax yàlla diwa ngi nii amatul tub amatul xeet amatul askan amatul ndax dañ naan jaamam yàlla baa ngi nii kenn dootul wax colonel ngi nii kenn dootul wax général kenn dootul wax député kenn dootul wax wali kenn dootul wax muqaddam kenn dootul wax nabi kenn dootul wax seex kenn dootul wax dara lu ñuy wax Abdallah budi dee amak ah. amatallah keroog ñëpp doo bokk ak kenn yàlla ya, rek kon nañ bokk ak dem imam bu ñëwee du wax na aljanna day wax allahumma innahu abduka sa abdika sa doomu jaam bu góor wabnu amatika sa doomu jaam bu allah jaam innahu abd ndax nangu nañu nekk amut ndax nangu nañu nekk ay jaamu yàlla sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam li mu gënoon bëgg ci àdduna mooy ku ko wax jaamu yàlla looloo tax suñu borom subhanahu wa taala ci aaya yi ëpp importance ci alquran yàlla ñu joxoñ muhammad abdu la ko fa woowee abd araayta allazi yanha abdan wa innahu lamma qaama abdullah تبارك الذي أنزل الفرقان على عبده سبحان الذي عصرى بعبده بقائي جيركم توب إنان كو سنگ بي جوم سنگ بي ياي نانغم ياي نانغم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقول عبد الله ورسوله ولن مجاي ولن مجاي ولن مجاي ولن tiim kilifa naan ko doon nit yow doon nit yow ngandangam yow yow yow ba jaag ñu ne ko yaay yàlla mu ne fott noppi di xool yaay yàlla mu ne fott waaw yow yaay yàlla nga tiim nit naan ko yaay yàlla te mu leer na ne kii am na ndey am na baay am nay soxna am nay doom nga jàng yàlla ne la qul wallahu allahu lam yalid walam yulad wala yakun lahu kufuwan nan lebih yaay yàlla au lieu mu weddi moom nag mënoon a di la xool ñu teg nga doon wax mooy yàlla ñu ne la wàcc la liggéey nga déparé sa kër ñëw anamu ñu la mu ci bi xam nga ne ko jay rek ba gaa yi ñëwee fekk yeneen bi toog ñu bu jay ko yaay yow yaay ne bu ma jay laa tadruni kama atarati nasara ibnu mariam di chrétien yi jayee isa ba ne mooy yàlla bu leen ma ko def de ñu ne ko lan mu ne innama ana abd man jaam la fa qulu abdullahi wa rasulu loolu tax place yooyu yëpp yàlla wooye ko fa abd jaam la ko yàlla parce que moom loolu la gën a bëgg moom sallallahu alayhi wa sallam bëggul ñu ne ko yaa nangam yaa nabiyallah yaa rasulallah yaa yaa yaa déedéet mu gën a bëgg ñu ne ko yaa abdallah garaat boobu moo gën a kawe ci martaba yi mooy nga nekk jaamu yàlla benn buur la fa xëy jaamam dee mu ne kan moo rey sama jaam ñu ne ko yàlla moo ko rey mu ne yàlla mu ne xoolal leen ma jaamu yàlla fu nekk ma fay ñu ne ah mu ne waaw wër leen sama jaam su ko gaa yi song jàkk ji fekk imaam ñu ne ko imaam kaa yooyu ñu ne lan ñu ne yàlla daa rey jaamam te yow jaamu yàlla la yaay imaamu jàkka ji mu ne kan moo leen ko wax man damay jiite kese de waaye du may ne ana jaamu ne dinañ leen seet ci jàngal mu ne la la ñu ne ko ah buur de la jaamam de dafa bëgg fayu te yow nee na yaay jàngale alquran mu ne kan moo leen ko man damay jàngale rek kan moo leen doon jaamu yàlla la dem leen ngeen ne ko man damay jàngale gaa yi wër dëkk gis ñu jaamu yàlla ku ñëw rek nga ne man du ma jaamu yàlla damay julli rek moom ñëpp ni ñuy julli dañu fekk benn waaye ndeysaan ñu ne ko buur bi de jaamu yàlla lay wër pour fay mu ne lu xew ñu ne jaamam daa dee nee na dafa bëgg fay jaamu yàlla nag ah man de xaw ma ndax yàlla nangul na ma ko waaye loolu laa ma xaw ma nag nag man ñu ne déedéet

اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اتباعه اللهم يا موسى ثبت قلوبنا على اللهم فنسألك أن تردنا إلى دينك مرة جميلة اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من كل الدنيا وعذاب الله اللهم يا هادي اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين